toog waxtaan parce que ñoom Sénégal la gën a jiital dañuy wax envoyé lettre ba toute la classe politique sénégalaise ngeen sàmm réew bi yow ban jéego nga bëgg a def ci loolu pour ñu gën a sàmm jàmm ji ci réew mi. ñoom ñoom président wax na loolu. non non sàmm euh, naa peut-être que. non non juste ma ñaari suñu mag yooyu suñu ñaari bàyyi yooyu d'ailleurs président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ku nekk si ñoom. réew mi jox na la boppam ay diir ku nekk si ñoom liggéey na liggéey bu am solo kon bu ñu nekkatee ay mag jël kàddu yooyu ñun dañ koy dëggal di ci dox mooy lii ñuy def ni fexe ba jàmm am ci réew mi Sénégal jëm kanam donc adversité politique warul tax ñu dem ba yàq ñi nga xam ne ñoo ko bokk donc ay leçons yu am solo la yu ñu joxe ma jàpp ko euh, di leen ci sant di leen ci gërëm peut-être juste le volet multilatéral bi moo doon deuxième partie question. waaw euh, Sénégal nag boo gisee yàlla dimbale ñu ba ñu liggéey fi li ñu fi liggéey yëpp donte sunu biir koom-koomu réew jéego yu bare bare def nañ ko si ndax budget yi daanaka li ci ëpp solo tey téeméer boo jël presque juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett juróom-ñett fukk ci suñuy recette bopp la kon liggéey nañu bu baax baax waaye. xam nga recette looy jot weer ba weer la donc mënoo si gaaw di développer foog nga am ñu lay lebal xaalis ngay liggéey loolu mooy partenaire au développement maa ngi leen di sant di leen gërëm si nii ñu ma gunge partenaire yëpp nag ndax Sénégal bi ma ñëwee ba tey jii lu ëpp fukki junni ak ñeent ñeenti junni quatorze mille sept cent milliards engagé nañ ko ci ay financement pour le développement fukki at ñaar yi ko jiitu loolu mu ngi nekkoon ci ñetti junni ak ñeent trois mille quatre cent milliards kon booy xool presque quatre fois ci volume def nañ ko looloo tax nag foo ñëw ci Sénégal tey nga gis ay piste wala forage wala courant wala ay tali ay autoroute ay train tout ça mooy liggéey boobu loolu confiance la kon damay sant partenaires yi ni ñu ma gunge ñu gungewaat ko Sénégal ëllëg ki fiy toog ndax suñu développement réew mën a gën a jëm kanam may santaan nag waa réew mi rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi leader politique société civile patronat ak syndicat yi chef de village yi mboolem askan wi si ni mu bindoo maa ngi leen di sant di leen gërëm si confiance bi ak waa diaspora bi euh, vraiment maa ngi sant suñu borom li ma bëgg li ma li dese rek si sant ak di ñaan mooy ñu continuer def transition bi jàmm am Sénégal su boobaa yaakaar naa ne sama ñaan duna nangu. merci excellence euh, président de la République jërëjëf euh, merci à mes confrères et consoeurs sama.